docteur Damso, directeur de l'élevage, représentant madame le ministre de l'élevage, ak euh, délégation bi mu àndal mel ni docteur euh, di inspecteur départemental de Dakar di euh, nuyu monsieur le député maire l'honorable député di rafetlu tawaayam bu baax di nuyu suñu doyen ñun ñëpp mooy El Hadj Mansour Mbodj di nuyu le président Omar Sow di nuyu le président Djibi Wane di nuyu notre cher parrain euh, Pape Sidi Ndiaye euh, di nuyu képp ku fi teew euh, di ko commencé rek rafetlu teewaay suñu doyen suñu mag suñu papa El Hadj Mansour Mbodj Hadj Mansour ñu fu na gis suñu xel day dal waaw parce que man damay faral di wax euh, docteur Diallo mooy suma maître mais man yow yaay suma idole yow yaay suma idole comme ni koy booy di waxee en élevage parce que lépp lu may def bi may door ba tey damay roy si yow da nga joxe exemple bi euh, un jour docteur jàllo wax na ma mu ne ma euh, ja euh, dem ba nekk au some jafewul mais lan moo jafe mooy nga des fa pendant des années man de bi mu la xamee ba léegi yaa ngi si sommet bi macha allah te yàlla na yàgg te ni ko Diagne Modou waxee léegi da nga ubbi say bunt ubbi sa bergerie man sujet yu baax yi ma njëkk am si yow laa ko jëlee wax na ko maamu Algor maamu Boy Séeréer te ñooñu vraiment mun naa wax ñoo ñoo defal suma ma jëtt euh, te ni nga ma ko defalee defal nga ko ñëpp. wala defal waxu ñu gën a bëri boobu donc loolu vraiment je tenais à le dire euh, di ñaar rek yàlla na yàlla yokk wér-gu-yaram di guddal fan yi euh, di aussi féliciter euh, suñu parrain bi di koy remercier également muy Pape Sidi Ndiaye si lu muy liggéeyal élevage parce que man xam naa ko depuis bi mu nekkee Grand Moulin boobu laa ko xam si discrétion mu nekkoon nit ku discret nit ku nit ku sympathique aussi donc te loolu moo moo ko moo tax mu am résultat yu mu am lii léegi ak responsabilité yu mu am léegi te depuis bi mu ñëwee Sedima gis naa ne mu ngi jàppale éleveurs yi parce que jàppale éleveurs yi du ñëw rek jaay leen aliment moins cher wala jox leen crédit wala leneen jàppale éleveurs yi mooy yow nga wàccee sa bopp yem ak ñoom di wax di leen di recevoir sa bureau di waxtaan ak ñoom ñoom it ñu lay conseiller di ne defal lii defal nii defal nii parce que maa ngi rappelé wu jur gi laadu bi ñu koy créé docteur Ba su fi nekkoon il va le certifier maanaam maanaam moom liggéey nañ si lu bëree bëri bëri ba si tur bi ba si xottu sac bi couleur bi ak yépp maanaam docteur Ba liggéey nañ si loolu te loolu yow yàq ko diggalal donc xëy na résultat bi ngeen am loolu bokk na si li ko li ko may résultat boobu parce que lépp loo leen def éleveur bi te euh, associé leen euh, éleveur bi rek non loolu du dem ah donc euh, yan da ngeen associé éleveurs yi si li ngeen di def ah, loolu tax ngeen am résultat boobu je tenais vraiment à te remercier par rapport à sa je tiens également à te féliciter par rapport ak parrainage bi parce que ñu parrainé la foire bu rafetee nii foire bu jékkee nii foire bu amee ni succès loolu du am solo te loolu sa loxo mu ngi si biir euh, di féliciter également waa RERA Euh, si cette foire bi pour une première euh, c'est c'est vraiment une grande première et vraiment réussie ah parce que ngeen def première rek mu mel nii lu si neex mooy en dehors du nombre y a la qualité y a la diversité diversité bi dem na ba si au sein des exposants gis naa fay entreprises yi nga xam ni xaw moon sax ça existé donc loolu day wane seen xarañ pour uti ay sponsor parce que man loolu laa gëm ñun tey ji lu ñu am c'est de c'est de l'or tey jii fi ñu toll c'est les sponsors qui doivent courir derrière nous ñun du ñun ñooy war a jël suñu xaalis di di investir si ay foire sponsors yi ñoo ñu ñëw dañu war a def ay montage lépp lu ñu soxla te du yem si foire rek lépp lu ñu soxla sponsors yi ñoo ko war a def parce que tey jii c'est un bi nga xam ne ay milliards ay dizaines de milliards voire des centaines de milliards ñoo koy ñoo siy yëngu donc loolu dama leen si euh, félicité euh, di euh, su bay pour wax bi bañ a gudd rek. di euh, vraiment euh, jaajëfal éleveur yi fi nekk yëpp sponsor yi fi nekk yëpp ak euh, suñu doyen yi fi teew yëpp pour la réussite de l'élevage